parce que euh, bis boo duggee école des arts da ngay jàngal lépp nekkul théâtre kese la ngay jàngal nekkul fecc kese la ngay jàngal lépp pour nga préparer sa bopp parce que tamit lu ne fa lu ne mun na ñëw quoi parce que man avant ma voyage yi nga ma wax lii mais bi ma ko waxee dama kontaan parce que fekkoon ne mu ne ci Aziz ndax Aziz moom ci sant dox kër si ci sant dox xarit mun naa ne téer yi gën a mag fii Sénégal samay xarit lañ kon bu ma ñëwee ci personnage bii non gaw moo am ci moom ñëw rek la kër def man man man téye dafa may solo sax man ma carrément lii ak lii la ñawal ma yombul dama xam lu baax mais comme bu ñëwee ci lëz loolu day mel ni Sonko romb gàcce man di barki kaabatulaay